parce que agent de santé quelles que soient les connaissances yi nga compétences on a besoin d'un plateau technique pour maintenant avancer Ce nag gis ne vraiment yaa c'est bay sa savoir, te lolu mom lañuy xaar ci ñepp ñoo xamanteni ñoy partenaire rawat na collectivité territoriale parce que tay ji bu ñu euh, cadre PNDS le plan national de développement sanitaire et social offre de service de am solo offre de service nak li da assurer la qualité moy jël matériel bu toll ni à hauteur de 34 millions jagleel ko centre de santé bi lolu vraiment euh, Pape Samba remercier au nom de la population mais man dama remercier également en dehors de la population dama lay remercier au nom du personnel parce que defal nga la population mais également population personnel bi aussi tamit defal nga leen ko parce que lii moom mooy suñu jumtuwaay yoo xamante ni mën nañu permettre tey jii li nga xamante ni moom la def ñu exceller ci euh, du ma ne nag euh, guléet mais euh, yow je pense que xëy na peut-être fii la ñu toogee maa yow ci ci commune de Rufisque ville de Rufisque mais mën naa jàpp ne yow sama maître nga parce que effectivement

ku taxaw la koo xamante ni bëgg a dimbal nit ñi ci wàll woowu donc mënuñu lu di ko ci gërëm ci lii mu def mais di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala aussi mu may ko comme ni ko sunu frère waxee léegi ay ndomba tànk kàttan ak mën-mën ba li nga xamante ni tey jii en tout cas euh, yéene na ko Rufisque naam ci wàllu sante la mu nekk loo xamante ni sunu borom dina ko sottal donc loolu vraiment moom lañ lay ñaanal di ko ñaanal at si tamit sa équipe yëpp équipe municipale bi parce que gëm naa c'est vrai que c'est des fonds de dotation de équipe municipale bi ñoom voté fonds yooyu donc nous lul remercier encore une fois de plus euh, di la tàllal suñu loxo avons la en tout cas nous ngi ànd ak yow ñu ngi pour nous développer la développer santé au niveau du district de Rufisque merci beaucoup. d'attendre que le que le district ou Youssou Bargan nous dise euh, à des moments euh, occasionnellement on a besoin de temps, on a besoin de temps, on veut être avec eux on va être avec vous avec une grande délégation. Vous avez vu tous les acteurs vous avez vu tous les chefs de service, vous avez vu tous mes conseils, tous mes cabinets. C'est pour leur confirmer que le matériel que nous voulons que nous, que qui est un matériel extrêmement important pour eux, c'est le premier acte d'un compagnonnage que nous voulons avoir avec eux. On ne va plus se contenter que qu'ils ne saisissent occasionnellement. On a besoin de ça, on a vu. Tout ce qu'on aura comme partenariat, comme ressources, on va essayer de les accompagner pour que le plateau technique soit très, très, très, très relevé. Ça sera au bénéfice des populations, ça sera au bénéfice de nos familles, ça sera au bénéfice du personnel qui, doit travailler avec un plateau technique relevé. Ils ont montré leur engagement. C'est à nous. Maintenant, ce n'est plus le moment où on dit on se contente de. C'est excellent ce que nous faisons en médicaments. Oui, c'est bon. Mais il nous faut aussi agir sur le plateau. C'est pourquoi vous avez vu les acquisitions autour de 35 millions autour de ça. se scanner, tout ça, c'est essentiel pour nous ou des structures de référence comme ça. Donc pour nous, c'est un début de partenariat qui va être grandissant, enrichissant, pour que cette, cette référence, je disais que tout le monde est lié avec l'hôpital dispensaire Gate, tout le monde est lié avec cette institution. Moi, depuis l'école Matassek, je, venais tout le temps. En plus, oui, euh, ma déclaration de mariage, je suis là. Et, et, et signé là, ça fait partie. Ça veut dire que nous sommes liés avec cette, institution. Les réfugiés sont liés avec cette institution. Je voulais aussi féliciter les responsables de cette structure. Ils l'ont dit tantôt, l'a Toutes les réalisations qu'ils ont faites ici, c'est à travers l'ingéniosité qu'ils ont, réalisé ça. Maintenant, nous, on ne peut plus être en reste. Maintenant, pas beaucoup d'or. Et nous, nous, plus Le plus nous, nous, Inch'Allah. En tout cas, félicitations et bonne continuation. fii ñu taxaw nii mu ne bu ñu civilisé woon nee na pat taxawaay bi du mën a demee nii wan nag ñu ngi gërëmaat nee na monsieur le préfet ñu ngi lay gërëm bu baax nee mu ngi ni taxaw ci wetam monsieur Kassé monsieur le maire Kassé mu ngi nii taxaw mu ngi njànku sembeen waroon na ñëw yónnee na délégation dafa xaw a tawat alaaji Pala nee na mu ngi def na lu nekk ci jumaa ji mu ngi nii taxaw alhaaji Moustapha Dia imaam ratib mu ngi nii taxaw nee na mu ngi nuyu Imam yi fi teew yëpp nee jiital nag imaam Bamar imaam Ablaye Ndiaye imaam Moustapha Dia tubarkàlla ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëpp ngi fi mu ngi mu ngi nuyu monsieur le di rafetlu ne ci pose première pierre bi nee na di nuyu grande ji réew Alaaji Pala Mbeng mu ngi nuyu maire yi fi teew yëpp ne di ci jiital ne maire Assane Kassé nee mu ngi nuyu waa Tëngéej yëpp ñee ñi doon julli ci jumaa ji ñëpp te teewe mbir mi nee mu ngi leen di nuyu imam wax nga dëgg événement bi ëpp na ma nee na ëpp naa manqué nee na jumaa ji ku fi julul ku fi julul sa papa julli na fi wala sa maam julli wala sa wala sa maam julli na fi wala sa maamaati julli na fi ba mu toll ci ay six génération moom day ne bi mu nekkee xale bu tuuti ne papaam da ko daan jàpp ci loxo jóge Mérina yoro parasolam di ñëw di julli si jumaa nee na noonu la def noonu la papaam def noonu la maamam def noonu la maamaati maamam def nee na imaam Ablaye Ndiaye wax na ko léegi nee na troisième jumaa ci Afrique de l'Ouest ci région du Cap-Vert nee na première mosquée ci région du Cap-Vert deuxième mosquée ci Sénégal nee deuxième mosquée ci Sénégal nee na dafa ni ko defarul sax mosut bi defar boppam. nee na ku ko defarul sax jumaa ji defar boppam. ñu ngi sant sunu borom bi mu ngi boole ci mbir mi. nee na ñu bu baax bi nga xamee ne boole nañu ci mbir mi. ville de Rufisque day. nee na ville de Rufisque day. moom maire yi fi teew yëpp. moom maire yi fi teew yëpp. adjoint yi ak adjoint yi fi teew yëpp. tey la gën a engagé wu. tey ñu gën a engagé wu. pour restaurer. pour restaurer pour restaurer grande mosquée bi. dama ni nee dafa ni. ren fi ñu toll nii. fi ñu toll nii. dinañ dugal ñaar fukki millions ci nee na fi ñu taxaw ni dinañ dugal ñaar fukki millions ci Grand Magal incha allah incha allah sunu mébéb nee seen mébéb dépassé na foofu nee dépassé na foofu waa waa Tëngéej nag lay lay lay woo nee na lay woo jumaa ji nee na jumaa ji jumaa la jumaa la wante waaye waaye nag nañu xam ne patrimoine la la kon maa ngi woo doomu Tëngéej yëpp nee na kon mu ngi woo doomu Tëngéej yëpp ku nekk ak am ku nekk ak loo am indi ko ci jumaa ji borom barke yi borom yi borom entreprise yi borom entreprise yi. ñi mës a seqal dara. ñee ñi mu mës a seqal dara. tëngeej tëngeej. ñi mës a seqal dara. ñi mës a seqal dara. jumaa ji jumaa ji. te ñooñu seen kenn xamul nu mu toll. te ñooñu seen lim kenn xamul nu mu toll. dafa ni dafa ni. suñu juma te suñu booloo. nee dinañ defaraat jumaa ji. ci kattanu suñu borom suñu booloo. dinañ defaraat jumaa ji lépp lu am ci àdduna. ay nit a ko defar wax rawatina nag ne waxatina nag bëri bu diine yi nag nee na mu ngi ci woo askan wépp ne di jiital boppam sant li ma yàlla may nee na di sant sunu borom bu baax a baax mi nga xam ne yàlla may na ko mu fekkawaat lii tey nee na foofu lay daanele kàddoom nee na dellu ziyaar imaam di ziyaar kilifa yi ñi ngi ñu ànd ak ñoom ñëpp délégation yëpp gis jigéen ñee góor ñi ak conseil ñëpp ñëpp ñi nga xamee ni yàpp may ne leen ñu teewe bés bi ñee ni ñëw sax ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla boole ci barke boobu بسم الله الرحمن الرحيم يالنا نتي الله الحمد لله رب العالمين سانت سونو بوروم بي سبحانه وتعالى نينا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني دي ام بكت لول بي مي تيوي مكت سي خيو خيو بي نيت واو مو ني مو جوكل كا ci bi nga xamee ne moom la ñuy sos jumaa ji ca 1844. ba léegi ba léegi. neen na kàddoom nag. damay sos nee day sos. jàkki tëngeej yëpp jàkki tëngeej yëpp. et banlieue et banlieue. ak jumaa yëpp ak jumaa yëpp. na ku nekk indi enveloppe am indi enveloppe am. nee na lay dëgërale kàddoom. alayhi wa sallam ñu sant di sëriñ sunu sëriñ Seydi Aboubacar si nee na ñu sant sunu sëriñ sëriñ Seydi Aboubacar si yal na yàlla yokk leeram nee na yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem damay jëkk ne képp ku fi teew nee dafay jëkk ne képp ku fi teew yal na yàlla fay la nee na yal na yàlla fay la bu fekkee benn julli bu fekkee ni benn julli mas naa julli maintenant mas naa julli ci suuf ci suuf benn bu ci yàlla nangu benn bu ci yàlla nangu yal na yàlla xool ci loolu yal na yàlla xool ci loolu ba ñun ñi fi daje ba ñun ñi fi daje kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk yàlla sédd la yalla sedd la ci bi ci dess nak bi ci dess nak moy geureum imam neena moy geureum nak bi ci dess moy geureum nak imam ñaanal ko neena ñaanal ko ñaanal imam ratib neena ñaanal imam ratib geureum ko gërëm ko waye ñaanal le maire waye ñaanal nit le maire les maires les maires ñaanal imaam yi ñaanal imaam yëpp li nga fi gis ci délégué de quartier li nga fi gis ci délégué de quartier li nga fi gis ci bàjjenu gox li nga fi gis gox li nga fi gis ci ay président de conseil de quartier li nga fi gis ci président conseil de quartier li nga fi gis ci sëriñi daara loolu doy na yaakaar ñaanal loolu doy na yaakaar ci njiital nag ci njiital nag préfet préfet bi nga xam bi nga xamee ni moo fi représenté tey moo fi représenté tey président de la république président de la république kon ñu ngi yóbbante préfet kon ñu ngi yóbbante préfet ñu yëgal nguur gi nag ñu yëgal nguur gi ni leen tàmbali nañu ni tàmbali nañu dañu tàmbali nag dañu tàmbali nag waaye ku ñu ci fekk waaye ku ñu ci fekk ñu ngi lay tàllal ñu ngi lay tàllal loxo jëkk ci doomi tëngéej jëkk nag ci doomi tëngéej yëpp jëkk ci doomi département jëkk ci doomi département bi yëpp kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk ñu ngi la ciy xaar ñu ngi la ciy xaar terrain bi départ nee na terrain bi nag départ na yàlla na sotteeg jàmm yàlla na sotteeg jàmm ñaan rek la ñu man nee na ñaan rek la ñu man waaye ñu ngi ñaan subhanahu wa taala waaye ñu ngi ñaan subhanahu wa taala bésu bésu tey bii. nee na ci bésu tey bii. bu lay dellu si déwén. bu lay dellu si déwén. yàlla bu ko kenn wuute. yàlla bu ko kenn wuute. waaye ñun ñëpp. waaye ñun ñëpp. yàlla na yàlla dogal. yàlla na yàlla dogal. ñu di ko inauguré waay ñu ko inauguré kon bu ko defee. amin waay. kon bu ko defee. kon su ko defee. ñu gërëm préfet. ñu gërëm préfet. ndax bii tey jii. ndax bii tey jii. mooy première sorteem. nee na mooy première sorteem. mu ñëw ci jumaa yi maamam mu ñëw ci jumaa yi maamam ji di de dëkk bi de doomi dëkk bi yàlla indi ko fi président de la République mu représenté président de la République waaye représenté fi boppam waaye représenté fi boppam ñu ngi ñaanal nit ñi ñu ngi ñaanal nit ñi nag pour ñu ñaanal ko yàlla ñu ñaanal ko yàlla mission bu fi préfet masa def mission bu fi préfet masa def mu réussir mu yàlla na ko ci yàlla jox lu ëpp loolu yàlla na ko ci yàlla jox lu ëpp loolu te ngay jige diwul buur de ne te ngay jige diwul buur de ñi fi jaar dooni gouverneur ñi fi jaar dooni gouverneur ñi fi jaar dooni ministre ñi fi jaar dooni ministre kon bu la yàlla indee tey kon bu la yàlla indee tey muy sa premier sortie muy sa premier sortie ci jumaa ji ci jumaa ji ñuy teg pose première pierre ñuy pose première pierre yàlla bu ko kenn wuute yàlla bu ko kenn wuute ci ñun bala ñu koy inauguré bala ñu koy inauguré na ñëpp ñëw na ñëpp ñëw bu kenn bañ a wuute bu kenn bañ a manqué ci barke yonent bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di sama nuyoo ci imam Bamar di nuyu imam yi fi imam ratib imam yi fi turu

pose première pierre bi fi indi may wax ne li bés bu am solo la yaakaar naa ne tey jii bu dul euh, juma délégation bima andal ñu jóge à la préfecture xam nañ li ñu nekk ba recevoir bi ma waroon recevoir le comité d'organisation jotul am wante ma leen ni seereel ne lépp lu état war a def incha allah dina ko def ba mat sëkk samay prédécesseur xam naa ne jot ngeen ni wax jot ngeen waxtaan ci lii wante incha allah semaine prochaine vais recevoir le comité d'organisation à la préfecture Je vais détailler le projet correspondance correspondances, transmettre je vais les transmettre à l'autorité supérieure muy le président de la république ndaxte lii na ci programme nous réhabiliter les cités religieuses Nous gis nañ ne mi ngi defar des yi mi ngi cités religieuses comme je l'ai dit tout à l'heure kon monument bu toll le maire de la ville rappelle Noko, muy un monument historique muy fi laay wax sax muy site boo xamante ne nii nit ñi dañu war a ñëw di visiter kuy def tourisme religieux yaakaar naa war nga mën a fi. Ta lolu, da fay dépendre si ni ñu projet bi ak ni ñuy le ministère du tourisme ak ñi ñuy ànd ak le ministère de la culture ak yeneen ministères yi nga xam ni yëpp dañuy liggéey jëme ci lii kon bu ñu jàpp ne yëfu tëngéej rek la ni ko la monsieur le maire waxee du yëfu tëngéej ci yëfu senegal la yëfu Afrique la yëfu àdduna la ndaxte UNESCO bu taxawee am taxawaay bu mu taxaw si mbirum tout ce qui yaakaar naa ne fu mu mënti nekk si àdduna bi daf koy dugal ci patrimoine am kon nañu fexe ba lii jéggi Tëngéej àdduna bi yëpp jote si heureusement que j'ai vu la presse maa ngi leen saluer ñoom tey jàpp naa ne vecteur d'information ñi war relayer ce que vous êtes en train de faire ba ñëpp dégg ko ñu joyal ko man nag xam-xam na ma si euh, lépp lu may def dama siy dem je vais droit au but mhm. xaw ma gauche xaw ma droite li ñu war a def dama koy xam

Inch'Allah, si je connais le contenu du programme je vais instruire les services de l'État dans le département Pour si bi a am nga taxaw ko si loolu daal mooy yu ne ma si remercier di ñaan suñu borom mu dajale inauguration bi euh, réception monument bi avons fait ce mat si ko kenn baña manké ma ngi leen sante sant ngi leen gërëm. ngi lay gërëm monsieur le maire ñu ngi lay sant ci acte bu am solo bi nga xamni tay ji nga gëna ñaar fukki million tek suñu loxo ñun wa comité bi ñu ngi lay gërëm ci turu imam ñu ngi lay sant waye defena naa kaddu yi nga xam mom moom la préfet wax légui nga xam ci walu lu jëm ci walu état lay confirmer ne bi may dugg si légui ci jumaaji le premier ministre

te yàlla yëkki ko mbaam mu defal ko teraanga ju ko gën a kawe yàlla na yàlla defal la ko yàlla na ci wér jiitu ndax it nag du sens du du sens si moom sens la ci ñun ñu jël doomi dëkk bi indi ko ci biir bokkam communication bi ça passe très vite te danañ la jàppale engagé wu nañu waxoon naa la ko maa ngi la koy waxaat en tant que ndey ji réew de sa département incha allahu rabbi danañ la jàppale danañ la jàppale ndax it ñun looloy suñu cër looloy suñu warugar kon ñu gërëm ñëpp sant ñëpp mais monsieur le maire encore une fois merci waaw xam nga dañu def pose première pierre mais incha allah à partir de la semaine prochaine am nañu ay rencontre ak ñi nga xam ne ñooy suñu ay architecte am na ay esquisse yu ñu génnal waaye dañ ne loo tàmbaliwul ba nit ñu yëg ko duñ la ci fekk moo tax ñu tàmbali te yil la bi li tax ñu tàmbali léegi mooy jumaa ji dafa daanu di ngeen gis image yi léegi dafa daanu te bu fekkoon nit musiba lay doon te gàcce lay doon ci ñu nit jumaa ju toll nii jumaa yi tëngéej jiitu wi ñu dem ba jumaa ji daanu doomi tëngéej ji yëguñu ko du ma ne bañuñu mais dañu yëgul kon nag yëgal nañ ñëpp tàllal nañ ñëpp loxo te incha allah à partir de la semaine prochaine le comité dana commencé li nga xam ne mooy première démarche yi ñu commencé ko te incha ñaan nañu yàlla subhanahu wa taala balay déwén ci waxtu wi jumaa ji dàq ci jumaa yi ci Afrique waay te ñun ñëpp nag yéen ñi teew yëpp ak ñi xool image yeeg ñi koy dégg kenn ku si nekk ñu ngi ñaan yàlla bu ñuy inauguré jumaa ji nga ñëw feeg wér ak tal te yokku ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam merci encore une fois monsieur le maire encore une fois merci monsieur le préfet merci les imams salaamaaleykum wa rahmatullah